bëgg lu naqadi àddina. bëgg lu naqadi àddina. ba tax nga naan. ba tax nga naan. man. man. bàyyi naa tariqa Cheikh Ahmed. bàyyi naa tariqa Cheikh Ahmed Tidiane. waxu ko ci boobu terme. waxewu ko ci boobu terme de. waaye leneen la wax. waaye leneen la wax. loolee nag. am na lu mu fi fekk. am na lu mu fi fekk. mënu ci dara mënu ci dara. wax ba xotti ko. wax ba xotti ko rek. dërëm yàqu. te aajoom du faju. Cheikh day. radiyallahu anhu. ku ko fi bàyyi. ku ko fi bàyyi. mu bàyyi la fi tey teg ku fi Cheikh bàyyi maamam bàyyi la fi ku fi maamam bàyyi yàlla bàyyi la fi ngay wut loolu la wirdin yuridil murida li hadratillahi walan yahida سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى الأحمد التيجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على السواء ku ma amit bàyyil ma Idrissa àddina ak àllaaxir je fais la déclaration ouverte avec Idrissa Seck te ñépp xam nañ ne tuuboon na ba ñëw nekk sama xarit à partir men na benn noon laa am ci kaw suuf mooy Idrissa Seck lu ma am dana jar lance pierre y'a un mois ki ko gën a jege woo naa ko ma ne ko ne ko yàlla nakkal na ko dix mille francs mooy saraxam pour mu jot ci réew mi la ma ko waxoon deux mille quatre na ñëw waaye këpp na dootul ñam nguur ba ba muy dee fii de doo fi doo Sénégal de du fi am dara allaaxira yi du fa am dara ca billaahi du am dara nañ dem nag weddi gis bokku ci ku leen topp ak ku leen toppul la ñemale duñu wutub taalibi mukk ndax da ngeen li sëñ Tuubaa ci Masaalikul Jinaan tabban lahu fa innahu law qasada salaaha xaali faqat mujarrada la sarrahu xusuuluhu hay faqat wala yubaali bi irtihaalihi abat ki nga xam ne dafa ñëw féeteeg sëriñ sàngam ba mu yàgg mu bàyyi ko dem ci beneen sëriñ mu naqari la ne yow alkade ñeel na la yow sëriñ boobu bu fekkoon te yow li la itteel mooy nit ki na mucc rek kon fu mu ko amee rek neex la